ngay mën di jot vidéo yu am solo yi bàyyi koo fii ci HDK Evolution da ngay ñu wax sabone boo noppee ñu teg ci cloche bi. sëñ Bachir waxee rek waxtaan bi ci murid bi diggam ak euh, ñaari mbir yoo xam ni yu ñu yu ñuy la ci biir dund gi te mooy wàllu li ñuy tuddee politique ak itam. jumtukaayu xarala yu yees yi nga xam ne dafa dund ci biir dund mbir yi tàmbale ko ci téléphone bii nga xam ne moom dama ko tuddee bind bindeef mu yees moo xam ni dafa ñëw tàbbi ci biir suñu dund gi indi nag jeexit lu rëy ci biir doomu aadama yi soppi leen itam soppi seen i xalaat yi nag seen i nag lu bari ci ñoom soppi ko sëñ Bisiru nag man li ma waajal nii bari na xëy na damay ko bari wax ni xëy na lépp yaakaar naa da ci xaj ndax na maa xam ne am murit mooy kan boo leeroon rek suñ digg gi ci des yëpp day leer waaye politique it dañ koy wax baat bi noonu waaye mooy lan lan mooy politique waaye jumtukaay yi itam moom koy dara ba nag xam ngir mu nekk xam ko baax na ci njëkk loolu itam faw itam ñu leeral ne murit bi mu daataa doon murit daa nekk ab julit nekk doomu aadama itam nekk ci kaw suuf suuf si itam sunu borom wàcce nu fi wax nu itam ne dafa am lu tax mu wàcce nu fi mooy ngir ñu nekk li ñuy wax kuutaatam ci kaw suuf inni jaailun fi lardi xalifa am na beneen bërëb boo dafa wax ne إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى nga xam ne doomu aadama sunu borom da ko wàcce ci kaw suuf ngir mu wuutu fi maanaam wuutu sunu borom sax baat bu rëy waaye mu taxaw fi jëmmal fi bëggug sunu borom tabaraka wa taala ci kaw suuf boole ci tam dundal suuf si li suñ borom wax ne yaa qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayruhu huwa amsaakum min al ardi wastaamarakum fiha daa bëgg itam ñu dundal suuf si dundal googu itam faw na ko suñ borom bëggi woon day am waxtu ne suuf si faw maanaam fam jëm faw mu àgg fa bu jullit ñi góorgóorloo suñ borom jox kilifteef gi jox leen kilifteef gi ak lijjanti bi buñ góorgóorluwul nag mu jox ko yéefar yi nga xam ne ne góorgóorlu ñoom waaye suuf si fa mu war a àgg faw mu àgg fa maanaam dund gi ci kaw suuf daa bëgg a léegi nag loolu yi muy liggéey ci kaw suuf nekk googu mu nekk ci kaw suuf kuutaat googu yi mu nekk ci kaw suuf suñ borom wax ne lépp ab natt la sun borom xamal na ci alquran ne dund gi yépp lépp lépp ak natt la wa huwa alladi xalaqa alsamawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu ala almai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladi xalaqa almawta wal xayata liyabluwakum maanaam dund gi lépp ak natt la ba tax doomu aadama bu ñëwee ci kaw suuf rek mi ngi ci natt mu xam ko ak mu ñàkk koo xam ni ko suñu borom tëralee itam dund gi lépp ak ak bëggama waaye lépp it da day jëmmal natt boobu mënu natt wa nabluukum bi charri wal xayr loo mën a nekk rek yàgg ci natt boo nekkee ci xéewal ci nattu nga ne boo nekkee ci safaanub xéewal ci nattu nga ne ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتيكم أنا لب أجنبنا nattu boobu yi nag dimbali nañu ci natt bi mooy day xool nan nga fi nekkee ak lii ngay jëf ci gan anam nga koy jëfee ndax lim la digal di nga ci ne wala da ngay fittirlu boo nekkee ci lim la digal boo liggéey boo ko fekkee mu jox la xéewal dugal la ci biir xéewal goo xam ne dana kawe sa jox soo nekkul nag ci bëggam nag boo ñëwee mu sonal la coono yoo xam ne dina la ëpp doole yàlla yàlla musal ci yooyu coono waaye lim nu dimbalee mooy danoo wan yoon bi wax na ne bam nu ba mu fi wàccee sunu maam Aadama da koo joxaale ak njub fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna njub googee nag am na benn wax ne fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa njub gi nee na ku ci jaar doo réer mukk doo gëlëm mukk doo farantu mukk di nekk ci lu leer nañ njub googu nag gàttal gi mooy islam islam mooy diine ji xam ne moom la suñu borom mas di jox yonent yi fi jaar yëpp ngir ñu jàngal ko nit ñi ngir mën a gindi ko yonent yëpp ay jurit lañ woon لأن القرآن سندر نكو وحنا هو سماكم المسلمين من قبل يونت يبقى من سيدنا نوح وأمرت أن أكون من المسلمين المسلم لون سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يسيدنا وحنا ربنا وجعلنا مسلمين لك سيدنا يعقوب ومي ديگر جبوت نه فلا تموتن الا وانتم مسلمون موي دم رك كون دين دي ين لا مس دي دون pas-pas bi benn la mas di woon di gi nag day yokk di gën a yaatu yeneen di dugg si moo tax yeneen i atte di sosuwaat moo tax diine ju ñëw ju mucc ñëw nga xam ne nag moo moom la sayyidina Muhammad sallallahu alayhi moo mujjee ñëw gën a matale atte lépp bayiwul dara ci dundu doomu aadama gi kon diine ji ak jubug suñu borom jooji nañ xam ne lenn la mooy inna diina inda allahi l islam yonente bi daana wax ne al ambiyaw ixwatun li allaat ummahatuhum shatta wa diinuhum waaxid seen diine jenn la mas yoon léegi nag dafa am wet boo xam ne sopp ko ci diine am loo xam du sopp ko pas-pas bi ak li ñuy gëm loolu du sopp ko mukk waaye acte yi nga xam ne mooy acte dundug nit ki loolu léeg-léeg mu soppe ko ndax dundu nit ñi dañuy soppe ko loolu muy indi furoo yi di soppe ko diine jooju nag moo tax ñetti xaaj rek la am na xaaj boo xam ne wàllu pas-pas lay jàngale am xaaj buy jàngale wàllu yi jëf yi yi cër yi jëf ni ñuy jullee ni ñuy woore ak jëflante bi nga xam ne moo dox diggante nit ñi seen biir ak aadaat yeeg yooyu yëpp la koy lijjanti moom la ñuy wax al islam nga xam ne diine ji daa tudd noonu xaaj boobu di ñëw tuddaat noonu moom la ñuy ci xam-xamu fiq iman ñu ngi koy jànge ci xam-xamu tawxiid ihsaan nag moom xam-xamu tasawuf moo koy jàngale mooy jàngale ni ngay jaamoo yàlla ak nan koy sellale ak teggin yi dox sa digg sa borom ak yàlla cay fekk si mooy axwaal yi lay dab ak nooy jëflanteeg moom ak cafka yi ñuy mos ci yoon yëg-yëg yi ak maqaamaat irfaaniya yi ak yi nga xam ne lépp alxuraan la ko jàngale amul lu ñu jëlee feneen loolu yi la borom xam-xam yi tuddee dégg nga xam-xamu tasawuf muy jàngale wàllu ixsaan ñett yu yépp nag ñu ngi daje ci xadis sayidna jibril ba nga xam ne dafa laaj yonent bi man ji ginnaaw mu laaj ko man iman ginnaaw mu laaj ko man ihsan ca mujj xadis ba yonent bi ne fa innahu jibrilu ataakum yuallimukum diinakum jibril moo ñëwoon di leen xamal seen diine borom xam-xam yi bandaloo ci ne kon diine yëpp mi ngi ci xadis boobu génnul ñett yi loolu moom la sëriñ bu mag bi waxoon ne aqsaamu diini rabbina al imaanu wa baadahu al islaamu wal ixsaanu fa awwalun yasixu biltawxidi wa thaani biltafaquhi alxamidi wa sixatu thalisi biltasawufi faljamcu waajibun bila tawaqufi sëriñ bi moom dafa wax ne imaan xam-xamu tawxid moo ko jàngale ustu tariqa ba muy wax sax li fii mur gi tege fondement yi nga xam ne moo fondé murid yi ba mu koy wax ponk yi nga xam ne ci la murid gi tege boo wax ne mooy ñett yii iman boo xam ne tawxiid da koy jàngale islam boo xam ne fiq a koy jàngale ihsan boo xam ne tasawuf a koy jàngale foofu nag ay détails yu bare yoo xam ne mat naa leeral tawxiid moom ñëpp a koy wax ku ne xam ne diine ji moom am na loo xam ci gën a dugg sax day gën a gudd ba fi yonent bi jógee sallallahu alayhi wa ginnaaw na suut jafe-jafe yu bari daa judd ay kuréel yu bari judd itam l'islam it am ay déggin yu bëree bari ndax fi ne li ma wax lu bëree bëri mooy lu la waaye mën a wax ci diine itam ak déggam la ci texte bi boo ko texte bi borom moom yépp li ñuy wax dégg la ci texte bi seen dégg yooyu nag bokkut ak texte yi loolu moo indi wuute am te l'islam itam nangu na loolu ndax loolu moo indi ijtihaad yonte bi wax ne ku ko def bu juumee sax am na benn tuyaaba waaye bu jamee jub ga am na ñaari tuyaaba ndax jéem gëm jéem ak jam gëm jam jub kon loolu ma ta xam la mooy ay wuute am na ci waaye nag l'islam ci suñ borom bayiwu ko noonu waxtu woon dana sàkk ñoo xam ni day ñëw yeesal diine ji jàngale waat ko na ko yonte bi bàyyi woon loolee ginnaaw yonte bi musta dañ di am na ko yonent bi waxee ci xadis bi Abu Daawuda net ne ne bopp téeméer at bu ne sunu borom dana dana dana yebal ci diine ji man yu jaddidu laha amra diiniha maanaam dana yeesal ci xeet bi koo xam ne day ñëw yeesal leen seen mbirum diine diine ji lu màggat waaye cër yi xol koy jëfee ak jëbb yi koy jëfe ñoom lay màggat ci ñoom Sëñ Tuubaa gis nga ba muy wax dafa wax ne diinun siwa islaamihi laa yuxmadu inda ilahi wa bihi nujaddidu maanaam ci diine ji lay jaare yeesalaat waaye diine moom du dara lu ci soppi amatu ci moom na mate woon rek noonu la mate kon suñu borom bi mu wàccee bii itam bari wunu lu may ne danoo boole ak ñoo xam ni ay yonent dañuy doon seen njëlbeen ñu daa ñu ñu daa jàngal njubam gii ñu ne ba yonent yi jeex mu nu yebalal ay mujaddiduuna ak ay gaañu baax ñoo xam ne moo leen di waajalal boppam ngir ñu ñëw di nu yeesal di di nu leeral njubug suñu borom ki ci mujj nag ni ma ko wax si Ahmadou Bamba radiyallahu anhu mi nga xam ne moo ñëw dégg nga la ca gaañu génne woon ñëpp yëpp te mu bokkoon ci mu dugalaat liñ ci dugaloon te bokku ci yëpp mu génne ko jàngalaat nu diine na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon amutu ëpp amutu yées sëriñ bu mag bi dinay wax ne pëstéefam ci gëstu ak xeeñtu la na yonente bi nekkoon deesu ko ci def ndax loolu moo doon yitteem laysa li al yawma xaajaatun uammiluha si waqti faayika xafwa al qalbi wal badani an yitteem mooy xam la yonente nekkoon ak nekk ca nam ca nekkoon loolu moo doon ak dundam te yëmaliwu ko sax ci jëfi zahir yi waaye xafwa al qalbi wal badani mi nga kon loolu man moom laa doon tàmbalee ab tàmbali la ñu xam ne itam wàll gi nga xam ne moom la murit féete muy tasawuf wàll googu it lu mat a xam ne la yonente bi extant la ko tuddee ci xadisam waaye alquran tazkiya la koy tuddee borom xam-xam yi nag biñ dajalee mboolem di ci rot ndax ginnaaw yonente bi xam ngeen ne xam-xam yi ginnaawam lañ ko dajalee naxwu ginnaaw yonente bi lañ ko sos di ci àtte làkk bi ak li ñuy waxee balaaxa dégg nga ilmul fiq xam yi nga xam yëpp ginnaaw bi la soso waaye ma nga fa woon lay jaa nga fa woon ñun saxaaba yi ko dund waaye mustalahaat yi ci sos seen ginnaaw ngir tënki ko xam-xam bi loolu seen ginnaaw la la soso tasawuf nag ci ci loolu la ne mooy xam-xam baa nga fa woon jëf jaa bi daa ko dund ak saxaabaam waaye nag ginnaawam lañ ko jëmmal def ko xam-xam saytu ko mboolem li aji ci wet googu ñu dajale ko mu di xam-xam ni ñu ko defee yeneen xam-xam yëpp fiqa tawxid ak yeneen xam-xam yëpp tasawuf ma ne na ñetti mbir rek lay lijjanti ihsan mboolem fu ko alquran wax ma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ñetti mbir rek la juñu mooy nit ki di gëm ak boroomam ak nit ki di gëm ak nit ñi ak di gëm ak li muy jëf ñett ñooñu rek la di gëm ak boroomam وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم مقام يونيك هو مقام المراقبة أو مقام المشاهدة يا مو يلا بمن يعني جل الله مم لول مم يوم واي بو أقول فوين لا خم نيني لي جس تلين عيد بلب نري كوبا يخل دي بفوغلو لول مم مراقبة ديجا مك نيت ني مو يلو من سديك سوا مثلا وبين والدين إحسانا digal wa sa digal li ngay jëf yonente bi waxoon ne inna allaha yuhibbu ida amila ahadukum amalan an yutqida ak inna allaha kataba al ihsana ala kulli shay maanaam lépp looy jëf ihsaan war na caa feeñ teg yi ni tasawuf war na faa feeñ tasawuf boobu yi nag moo lay yóbbu ci maqaamaati buur yàlla yi moo lay yóbbu ci شنو بروم بغل لا بوكم ان الله يحب المحسنين محسنين من المتصوفين الموصوفين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين معيه سن بروم تي من امي تام سن بروم ديغ لين يتام نيام ديك ني دو دو سانك سين ديف موك ان الله لا يضيع اجر المحسنين busrayaat yi itam ci ñoom lay feeñ wa busra lil muhsinina gis ko ñoom lañ gis ñu mën a am tawfiq seetlu seetlu teg man a gis yonente bi di dul nelaw loolu moo fi indi awraat yi nga xam ne moom la gaa yu baax yi sos turux yi jële ko ci yonente bi ci lu dul nelaw wala boog si Ahmadu Bamba radiyallahu anhu moom moom moom ci yonente bi la ko jële ci lu dul nelaw loolu cennte googu du lu yomb kon busrayaat yooyu ci ñoom lay feeñ nga xam ne ñoom ñoo dem ba jege ak nubuwa mooy siddiqiya ñoo ci àgg anama allahu alayhi min annabiyina wa siddiqina wa shuhadaai nga xam ne ak nubuwa siddiqiya moo ci topp moo tax gis nga ci alquran salaamun ala ibrahim kadalika najzi almuhsinina li ma bëgg a indi foofu rek xëy na xaw na lënt islam ñu xam ne du benn tolluwaay ay tolluwaay la nit ki dana doon muslim te du àggagun bu nekkee mu'min ba noppi nag day doog doon murid jëm ci nag maqaamul ihsaan loolu alquranu karim moo ko wax qaalat al a'raabu amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslamna ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي سامي عربي يقول يا أخي يوم تبني الجملة القرآن واحد يقول يوم جملة قلنا أقول الإيمان يلبي الإسلام كده في ده يجي يقول يعني جدو سيبير أن جدو رك سين وين جدو جدو ينكت وين جري دقيقة دقيقة جم تدور سين خال دهن جدو دهن وار وين جري دام دهن يوم جم يلا دقيقة دقيقة لا أعظم آية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ولا يبعث دق دق جم يلا لا أبو توسك سكت أمام يوم يو يعني تد بوب مؤمن إيمان لك يونت بي موي جانا لي كاي ماي موي اك اك تشوفين بوغ بوغ يالا بوغ يونت بي موي ماي ايمان لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين kon faw nga am bëgg bëgg yonent bu wér doo nga am iman laa yumin laa ji day dàq mboolem luy xeetu ngëm xatta akun axabba ilayhi ginnaaw loolu dina ngay àgg ci iman iman nag moo lay yóbbu ci njub wa man yumin billahi yahdi qalbahu boo amee iman nag suñu borom ne doog laa taw fee xam ne hidaaya mooy ak njub njub googu nag am na fenn loo xam ne yahdihim rabbuhum bi imanihim ñu googu nag boo ci àggee luy màgg la moom walladina htadaw zaadahum hudan lu mu gën a màgg nag nga gën a jege dégg nga li ñuy wax ak taqwa taqwa wala fi yàgg nañ ko fi ragal yàlla waaye taqwa ak xawf bu ñaar yooyu bokkuñu maanaam taqwa mooy mooy wattu suñu borom ba doo def lenn lu ko naqari di def ay ndigalam di bàyyi ay terem boole ko wekk ko ak bëgg ko di di di dox la jëm ci moom di def sa kem kattan ci ndigal yi ak bàyyi tere yi taqwaa góor góor gii nag mooy jur maqaamaat yi nga xam ne moom la góor yàlla yi daa am yëpp di alquran wax la ci njëkk mooy alfurqaan in tattaqullaha yaj'al lakum furqaanan mooy nga maanaam nga xàmmee dëgg ak fen mbir mu ne buñ la ko waxee bu la kenn leeralul nit yow da nga xam ci sa xol la ca wér ak la ca wérul furqaan taqwa ba tey moo moo lay jural xeeti xam-xam yii góor yàlla yi eh, suñ borom baaxee góor yàlla yi wattaqullaha wa yuallimukumullah ndax taqwa moo ko ubodiye ñuy ànd te ubodiye maanaam taqwa am na xam-xam bu muy jur ubodiye te am na beneen xam-xam bu muy jur loolu lépp ci alxuraan lañ ko baraloo واتقوا الله ويعلمكم الله بمعنى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما إمام خم خم بوخم ديام سبب بوب الله تقوى دي وهي أمنا خم خم بوخم در بوخم سبب بوب العلم اللبني وبينك مم عبودية بمسك مويتخ نمان شعر عبودية مويتون أن يام يام ubudiyatu bokkut ak ibadatu ibadatu mooy mooy mooy jaamu yàlla yi cër yi def ubudiya nag jëfi xol lay doon yëg ne yow amoo tus mënoo itam xamoo ngay dund loolu dund ne yow ku ñàkk nga ku néew doole nga ku umpule nga ku doyadi nga te safaan yooyu itam mi ngi ci sa borom mooy ki am mooy ki xam mooy ki man mooy ki am kattan mooy kiy jëf ca dëgg-dëgg loolu moom la ñuy wax yëg-yëg yu ubudiyya ci xol yooyu nag mooy jur maarifa billahi mooy jur al ilmu ladunni bu ko defee ngërëmul yàlla nag ba tey ci ginnaaw ba lay ñëw radiyallahu anhu wa radu anhu dalika liman xashiya rabbahu waaw ginnaaw ba itam ولاية تلين ولا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة نيونيو سن بروم ديغنا لن ني دون جيم سي جن كيب ولمن خاف مقام ربي جنتان مولانا زي الله جنة المعارف ak جنة الزخارف جنة الزخارف مو aljana ji nga xéewal yaa fa ne lekk yeeg naan yeeg bërëbu tawfiqe bee nga xam moom yàgg nañ ko wax ci téere yëpp rek nga xam boo fa demee moom tey doo sonn doo jaaxle doo am benn jafe-jafe sa dara du metti doo feebar doo faatu jaamu yàlla amutu fa te dara lu lay naqari amut doo gis dara lu lay naqari xet bu naqari amu fa ñaq amu fa dem ci wanag yi amu fa yooyu yëpp amu fa jaamu yàlla sëriñ ak taalibe yëpp amu fa kenn ku na nga nekk sa xéwal rek xam nga loolu dund loolu am na ñoo xam ne loolu moo leen tax di jaamu yàlla fi ne waaye waaye murid dëgg dëgg nag yooyu toppoo ñu am na yu kawe yooyu fii jannatin wa nahar fii maqaadi sidqin inda malikin muqtadir ñett yooyu benn bokk sa morom moo tax moo tax maani yi nag moom mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tasawuf léegi nag nit ki nga xam ne ab jullit la nii njëlbeen gi li ci ëpp yii yëpp du ko du ko du ko du ko du ko du ko du ko du dana ci ne nii rek waaye yii gars yi fi ne tey moo ki nekk ab muslim nga xam ne moom da ciy judd rek di jullee ko woor nii waaye ngëm dëgg dëgg ngëm nekkul ci xolam mooy xale yi yi nga gis ci mbedd bi ñoom paa yi nga xam ne dañuy nekk ci jàkka yi ñoom dañuy jàpp ne ñu yewoon ñu yewoo di ko rek ñoom jàkka yi waxtu nekk nag bi dem ak a dikk permis bi ngay jàng nga jàngal xam nga dañ jàpp ci daal ci seen jamono moom weesu na maanaam ñoom xamuñu lii paa yi nga xam ne dañoo nekk ci iman moom xamuñu la ñu nekk ñoom ci nekk ci iman itam xamul li murul bii ne moo tax kenn ko da ngay critiqué ka la kaw <laughs> boo gisee diine ji noonu la demee diine sayidna euh, Muusa yahud yi nangul nañ ña ko jiitoon waaye nangu ñi leen mujj mooy sayidna Isa ak sayidna Muhammad sayidna Isa ñi ko gëm nangul nañ sayidna Muusa ak ña ko jiitoon waaye nanguñ sayidna Muhammad ñun nag nangul nañ ñëpp xam ngeen nga xam ne kii dugg ci lislaam day mel ne moom ñëpp maanaam diine yëpp ma nga ci léegi nag booy dox nag noonu ci comme xale bu góor boobu moo waxoon ci mbedd bi da nga dem ba jëmmi jamono nga yëg ne kat mbir yi kat li mu ni ñu ko jàppoon war ngaa wuti yàlla te war nga ko am te mbir yi duy caaxaan li ngay siin ci kaw nii dem bukkut ak mbir yi dëgg-dëgg te dee ngi li ci weesu fi ne la ci dem na te mbir yi day gën di jafe te ëllëg it nii ko gaa yi waxee fi ne mat naa bàyyi xel nga tàmbalee wu nag wër yàlla nag wuti yàlla foofu nag muri tàmbalee nga xam ne moom day mel da nga yëg ci sa biir ku lay woo ñi la woo ci lépp fa firru ilallah yàlla woon nañu bu yàgg waaye woote boobu du ñëpp koy gaaw a dégg da dem ba mu yàgg nag nga yëg ko nag mel ne suñu borom mu baax moomee te sell danay di di wax ne yow kat maa gën ci yow ñëpp ndax ليونت بخنا الله أرحم بعباده من المرأة بولدها يلا نملا يرمي مورا ونلا سنة يرميه يموتي لور مترلو مولم لتي دون بيني تسكوك سي أغلقه ورلب دلقي الدومارم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة wax ne dama laa feral wala xad karram naa bani aadama yaa bëyeeg xar yi fi ne yéen a bokk borom ëpp loolu war a dara ndax mbindeef nga ñuy mbindeef waaye teewul suñu borom daganal la nga mën leen a jëfandikoo di leen takk saret di ci dox say soxla di ci lijjanti say dépense suñu dëkk bu sell ba nga xam ne ba demee moom moom wax mbaam moom sëñ am na fa jafe-jafe boo xam ne yàlla ko yàlla yërëm te doon di ko yërmaane nga xam ne gars yi dañ koy takk waxtu wu ne duñ ko noppal boo xëyee suba bu timit bu bu bu bëccëg jotee yow yaay noppalu dem xewlu ji dee si waat takkaat baam bi dóor dañu wax ñu ne baam bi da saay saay nga xam ne baam moom noppalu mukk te baam day borom bakkan ni yow ëppale ko dara di yëg ñoom sax dañuy dagg bu ko defee bëgg mu gën a gaaw bu yow yaay noppalu ji te doo ko jox xont bu doy daanaka boo sa bu bañ rek del ci waat Dakar di ci wut dépam loolu teral ci sun sun borom teral doomu aadama moo ko moo ko moo ko waral wa saxara lakum al fulka li tajriya fi l baxri bi amri wa saxara lakum al anhaar wa saxara lakum alsamsa walqamara daa'ibayn wa saxara lakum al layla والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها خير اللي خمنا بدي أخمك نقداني تشغل نيجيس يدق أم خل بمن جيفني كوم بوجه بيجي كوسو كلام ده يوم لأن نتكلم ما تيار كده أنا بيجي يوم ما نكوبني خمني ما كوبني وأنا نكو يك تخرب فوفي أنا اللي بقى wute yàlla mel ne suñu borom da koy déey ne ko yow kat maay sa soppe bi gën a kawe maay ki la gën a jàpp ci gaa yi maay ki gën a dimbali ndax fi ne mboolem lu am loo am ci lu baax maa la ko jox si diwaan yi nu àndal nga xam ne mooy taw bi gën a kawe ci li am noonu moo nu boole moom. manu nga juddoo ca sàpp yi nga xam ne toog doo jàpp sàpp na jàppante waaye am na ñoo xam ne xamuñu si diwaan ba di ko am. maanaam maanaam ngaa sax du bañ a doon ab julit waaye nga doon julit doon murit loolu tawfeex la sëñ loo xam ne yow du yaa ko defal sa bopp waaye yàlla la ko defal yooyu yëpp nag da ko nag suñu borom ne da lay ne kat xanaa yow doo ma gis nag ah, maa ngi lay feeñe ci lépp te maa dàq lépp nag taar boo fi gis muy nur lu rafet yàlla ko sàkk yàlla mooy moo dàq lépp loo fi gis rek muy muy muy muy image bu rafet rek ci kaw suuf ak lu mu rafet rafet du dara du may as dox ci kaaw suñu borom bi nga xam ne dara biiru di moom aljanna wax ne ne buñ fa demee man kat eh, kon loolu dama bëgg wax ne yooyu mooy jur ak murid nit ki nag bëgg a dem wutib sëriñ loolu dañ ko gis fii ñoo xam dañ fi ne lu yàgg yàgg am ab sëriñ duñu kii waaye benn bis dañu gis rek am ay yigi da nga wuti sëriñ foofee nag la seenu murid tàmbale seenu dox tàmbale tàmbale ko keroog bi nga demee ba jébbalu jébbalu lu rëy la te bari secret du lu woyefit rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci njëlbéenu lislaam ku masaa dugg ci lislaam faw nga jaayanteeg moom suñu borom xamal ko ne ko ñii jaayanteeg yow yàlla ci boppam la ñuy jaayanteel inna alladina yubayi'unaka innama yubayiuna allaha innama dinaa wax ne bokkut ak ka annama innama mooy yàlla ci moom lañ jaayanteel maanaam jaayante yàlla dañ koy defal ginnaaw gisoo yàlla nag rasulullahi moo ko fi nekkal ginnaaw gisoo rasulullahi nag sëriñ mag bee ko fi nekkal sëriñ mag bi mooy sëriñu tariqa bi moom mooy sëriñu yoon bi léegi nag ginnaaw gisuñu ko noonu ñi nag yàlla defal nañu ba léegi fi ne ñi dox suñu diggante fi ne kenn ku ne kër ga nga bokk boo seetloo ñi dox sa diggante sëriñ bi du ñëpp ñett kii nga jébbalu mu jébloon ci bàyyi mu jéblu ci sëñ borom te jaay te lu am solo la mooy sa ruux da koy aj ci ruux ak calala gi wax na ne képp koo xam ne yaa ngi ci calala yii calala xam ne rasulullah yi mu nekk ci boppam am sikk sàkka ci ne tegu la rek yow nee na ci suufu adam nga nekk sa digg ak rasulullah sallallahu alayhi ka nekk ca bopp ba kooku mi ngi lay teg bët yow amoo doole waaye ñoom am nañ doole mi ngi lay càllale yi niñ ko xamee rek nga xam ne bii de lonk ci bii bii lonk ci bee yow amoo doole xamoo dara mënoo dem fenn waaye ñoom ñi ngi dox moom ndox xam ni <laughs> moom kenn xam xiiraay ba moo tax ñu la bët di la dimbali di nag awraad yi ñu def ci yoon wi dox bi mooy loo ci gën a góorgóorlu di gën a dem nag ca kaw bu yàggee sax nga mën a dimbali ñeneen boo mënut a dimbali kenn di yow des na dimbali moom as nag moom faw nga def rek mu ci yow insha allahu taala kon loolu foofu nag mu di tàmbalee bu ko yoon yi ay waruwaay lañ ngi def ci suñu borom sëriñum yoon wit benn la yoon wit wenn la ci cosaan rasulullahi mooy def saa yu demee ba yoon wi nar a jaxasoo nit ñi xàmmeetuñ dëgg dëgg na ca bokk la ci bokkul mu tànn jëmm joo xam ni dañ koy waajal mu ñëw yeesalaat yoon wi ñi jiite yoon wi itam nga xam ne ñoo yor tarixa itam bëriwuñ niñ ko waxee ci lu bari daanaka xawuñoo ëpp limu maanaam sa sa baaraam yi foofu nga xamee taw yow di nga am nun Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne moo mujjee yeesal diine mujjee am tariqa boppam itam هذه طريقتي وفيها الماء tarikh alqawm alladhina jama'u nga xamne mom yemu ci tariqa kep waye mbolem tariqa yep la ci dajale muy leen ñu jox ko war way wowu di war way wu gaaw ni mako wax rek càllalay tariqa bi muy gëna gatt ci kaw suuf ngëdd maa ko suñu doon jël ni an sama kala gi dañoo dëgëru fi rek kuñ ñëm diko joxe ka <laughs> soxla rek dem rek waye nun càllal ci am yi ci gëna a gudd suñ digal suñu ñett ci dox yenn yi ñaare ci dox nga mën ne sëñ Muntaxa Cheikh Mouhamadou Basir jox ko ko sëñ Tuubaa jox ko sëñ Mouhamadou Mamoun Ñang mu baax ma yàlla ko yàlla doon leer sëñ Mat Lam Jóob Dagana joxoon ko ko sëñ Tuubaa ko ko sëñ Seelu mu baax mii yàlla ko yàlla gën a yàggal sëñ Seel sëñ sëñ Mat Lam Jóob Dagana joxoon ko ko sëñ Tuubaa jox ko ko Cheikh Saliou Mbacké mu baax ma sëñ Mbacké bu soo joxoon ko ko sëñ Amsatu Jaxate jox ko ko sëñ Mbacke da ko jaare sëñ Abdou Khadir waye moko jox sëñ am sëñ jox nako na mag ni ni ko waxee nii comme ya, ni ngeen def rek dañ ko da yeesal ku ko jëlit da ngay dem bo gisé ko ci am càll gat dañ ko nga iya, koy yeesal boo demee ca gànnaar am na fa ñu am càll gat ko man Cheikh mohammed Misk jëlé ko Sidi amul lismu ak Cheikh Moudid Sakho ñoom ñaar yëpp jëlee sëñ Tuubaa boo demee ñoom foofu am nañ ko la ñom gone ko ndaw bu judd dañ la ko jox ndax sëñ bi wax na rek ku ko jël faw di nga tàbbi àjjana te kenn du la xisaab te kenn du la mbugal ci kenn wet ah kenn du la jël sa dara moom moo tax ñoom jigéen ñaar fépp bari ñëpp a ko jël moom xam yu ndaw yaag ñëpp ko jël donte nun nag am na yeneen tawfeex xam nga noonu <laughs> tawfeex it a bari boo jébbaloo te si Sëñ Tuubaa yi itam loo ci mooy rek bi ne mooy nga ci maa xool mooy nga ci Sëñ <laughs> mi nga kon waruwaay woowu yi nga xam ne nag moom la suñu borom tawfiixal di tariqal muridiyya di tariqa boo xam ne mënoon naa cee indi ay yim ràññi koog yooyu waaye loolu mel na day gën a guddal moom ma ñëw rek ci ab murid kon murid sëriñ bi leeral nanu <clears throat> mooy kan wala nag sëñ bi yombul moom <laughs> murid bii sëñ bi waaw yombul moom suñu bi jaxate waxoon na bu yàgg ne murid dëgg yombul la yomb ngay nga wax ne man am murid laa te doo am murid maanaam dëgg dëgg murid bay dox ca yoonu gaaña boobee murid moo yombul waaye murid yu ndaw nu mel ne nun ñi nag moom ko bari nun ñëpp di murid yi nag lañ bokk ndax bëgg nañ Sëñ Tuubaa bëgg nañ murid yu mag ya bëgg nañu àgg itam suñu bakkan yenu tëgg lu tëlee mënuloo dox <laughs> waaye noonu yekkat Sëñ Tuubaa waxtu ni mu xëcc lu ndax gaa dem moo leen xëcc ci barkeem leen suñu borom xëcc moo tax ñëpp murid lañ waaye nag murid yi nga xam ne dañoo dox nag ba àgg waaye ba ñoo ñoo yombul kooke Sëñ Tuubaa wax ne mooy koo xam ni maanaam ak bëggam da koy seer ci bëggu suñu borom nga xam du amu bëgg du amu bëgg du ami aada itam du am aada nga xam dara du ko itam lu may bëgg suñu borom taala حد الإرادة بقول السادة ترك المريد ما عليه وصف المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراد من لم يرد شيئا سوى مولاه يصل له ما يقول أن يالا كيب lay sàkku ngërëmam ci lépp moom lay wut moom lay ci lépp li nga xamal ne loolu yombul mooy maanaam xam nga tawfeex ji gën a kawe suñu yoon wi mooy am na mbokkum tale bi moo xam ni yàlla dogal mu dugg ci yoon wi lu sax ab sénégalais yàlla dogal bi nu bokkee toog te borom xam-xam lay def bu mag ndeysaan dem na nekk mag dooga dugg ci yoon wi mu ne moom li ko gën a yóbbu ci mu doon murit mooy tur wi ndax gis na tarixa yépp baax waaye maanaam tur wi nga xam ne tey daray sëriñ bi laaru ci nga xam ne day iradatu wajhillahi nga xam ne sëriñ bi askanu ko ci boppam askanu ko ci ay dëkkam askanu ko ci ay suufam ak ñeneen ak ñeneen loolu bokk na ci neen loolu nee na mooy li ko gën a yóbbu ci mu tànn yoonu murit ngir nekk murit loolu nag xam ngeen ne sëriñ bi da koo delloo ca cosaan la maanaam murid yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ci boppam moo ko digal ne ko wasbir nafsaka maa alladina yad'uuna rabbahum bilgadaati wal asi yuriduuna wajhahu yuriduuna wajhahu mooy muriduuna wajhahu foofu la muy tàmbale yaa mooy mooy mooy tànnii fi saxaaba ya nga xam ne yàlla képp leen ñoroon ci lépp ñu bàyyi seen lépp nekk fi buntu yonente bi suñu borom nag digal yonente bi ne ko tënkal sa bopp ci seen biir te bul génn mukk ci ci ñoom wala taadu aynaaka anhum sa bët bu mu teggiku ci ci ci ci ñoom dee xool waxtu ne butu biir maande boobu yi te suñu borom waxoon na yonente bi ne ko fa innaka bi ayunina ma ne sama bët du ko ci yow moo tax murid yi ñi gëna am tawfiq suñ tuba bi ko tuba bi laaje fukki laaje yooyu nangam lan jublu way yoon bi dafa wa amma maqsaduhu fa wajhu llahi taala al karim moy jëmmi suñu borom rek ba mu ko laaje tam ñan ñoy ñi ànd ak yow murid ñoy ñan moy alladhi mu alladhina yuriduna wajha llahi taala min zaman rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ila zamanina hada moo dem ñoo xamni yàlla rek a leen mas di ñor ci ñu yonte ba jamono ñi ñoo ñoy murid loolu la ko to mas naa yem day itam Daaru Salaam sëñ Basiiroo ko nappe ci minal baa xani ku ñu wax Abdoulaye Jaw neen la la muy wax ca daara ja ne ko boo demee nga wax waa daara ja ne leen koo ci xam ne adduna mooy yitteem na dem bàyyi ma fi daara ja koo ci xam ne àllaaxira yitteem na dem bàyyi ma fi daara ja koo ci xam ne adduna ak àllaaxira yitteem na na dem bàyyi ma fi daara ja koo ci xam ne nag yàlla képp moo yitteem nag mu toog xam nga murid yi du ne dañoo bëggul àjjana àjjana moom lu suñu borom di baaxee jaam bi la bu la ko loolu nga bëgg ko nga wuti ko itam yàlla da ko xemmem loo boole ci waaye nit ki du jaamu ngir rek bëgg dem àjjana ndax suñu borom buur la boo xam ni maanaam lu ko neex def mënoon naa jékkee ne maanaam àjjana bàyyi naa ko amul bokkutul ci mbir yi <laughs> ku ñëw du nga dugal àjjana sawara laa lay dugal waaw ñu bari dañuy bàyyi jaamu yàlla bu fekkee da nga àjjana taxoon ngay ngay ngay ngay kër kër yi murit nag mooy koo xam ne koo jógu boo ku nekk di jaamu yàlla rek ndax moom da yàlla moom sañ koo dig ko lii na ca nekk ëllëg fu mu ko dugal baax na sama bàyyi bu baax si Abdou Samad moom suñ mën a wàll day wax baat bu rëy te am solo lool wax ne suñ Tuubaa ak mbaaxam àgg na ci yowmal xiyaam buñ fa demoon mën naa maanaam ak am àgg na ci mën naa wax suñu borom ne ko maanaam mboolem lu jaam ma sa def ci lu nañ ma ko sëf ñoom ñëpp ñu tàggaaj rek man ma tàgg sawara ñun suñu baax suñu tubaab am baaxam àgg na foofu waaye nag suñu bis boo xam ne buñ fa àggee sawara soo si suñu tubaab ne man moom mooy dàqal àjjana jee ndax saw àjjana bu fa suñu tubaab nekkul saw daa koy dàq. ida kaana ida kaana al jahimu ridaka anni fa ma daaka al jahimu siwa naim loolu nag moo tax mu ne la foofu lañ foofu lañ nekk mooy ñoom li ñuy jëf ni foofu la seenu sëriñ nekk foofu lañ bëgg a nekk looy tam ba la ñuy jëf dañ koy jëf ngir yàlla ak dégg digal gi ko digal waaye lu leen ca bu ko yàlla nangoo loolu mooy seen taw mooy mooy li ñuy yaakaaroon li gën a kaw ci mooy na ko nangu bu ko nangoo ba noppi nag lu mu leen ca terale itam ginnaaw bi loolu ci mbaaxam la waaye yëpp ñu ne sax yeeyoo nañ murid dëgg rek foofe lay ne bu ko defee moom isil muridu laa yuridu abadan gayra rida mooy koo xam ni ngërëmul yàlla rek la sax murid nag xeet yu bari maanaam du wenn xeet rek du ñenn rek ne suñu borom sax bokk na ci turam al murid mooy murid la waaye waaye ni ma ko wax lu bari moo dul suñu borom xam nga ku wute nag murid yi jërës yëpp ndax mel na boobam ci iraada rasulullahi murid la in araada nabiyu loolu gis nañ ko ci alquran suñu borom melal ko ci iraada suñ bu mag bi murid la yaa xayra man rabba muridan laa yurid siwaaka yaa faala kulli ma yurid rabbaytani falaka shukriya abad يا خير معبود بحق عبدا فرقني ترقية الأخيار واي مريد يب بودنا نك سر مريد يا خم تاي أي خير لما بيس أما يا خم مريد لني واي أدرى لني بكر مريد الدنيا منكم am na ñoo xam ne murid lañ waaye bëgg nañ yàlla bëgg yonente bi waaye nag bëgg nañ àjjana jee gaa yi wax ne bëgg bëgg bëgg nañ ko bëgg nañ ko wana suñu borom wax ne in kuntunna turidna allaha wa rasulahu wa daara al axira fa inna allaha aada lil muxsinaati min kunna ajran aziman soxna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye suñu borom wax na ci alquran murid yoo xam ne ñoom genn bëgg nañ am mooy dalika xayru lilladina yuriduna wajha allahi wa ulaika humul muflixuna ñoom genn bëgg rek dañu am mooy yàlla subhanahu wa taala mooy mooy ci lépp moom la ñuy dàkk moom la ñuy wut ngërëmam moom la ñuy sàkku moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy dox jëm ci loolu nag mooy li gën a kawe murid boobu yi nag am na melo yu mu war mel am na yu ñu koy xàmmee yu bëree bëree bëri yoo xam ne xay na du du xaj ci waxtaan bi am na itam ay teggin yu mu war a làmboo dinaa ko misaal ci misaal bu gàtt misaal bu gàtt lu bëree bëri mooy ak murit bu doon jëmm ji nga xam jàppal ne jëmm ji nga séen jëmm ji nga séen aw bokk ak ruux jëmm ji nga séen mooy sariya ju tegu ci alxuraan sunna waaye nag ruux gi ci biiram mooy ay teggin waaye sirru bi nag sirru mbir yi nag yaalamu sirra wa axfa sirru mbir mi nag nga xam ne moo tax léppi dox kooku mooy mooy bëgg nag bëgg sëriñ bi mooy secret ak murid ñett yi benn mën ci ñàkk jëmm ji mënta ñàkk mooy sariya bu tegu ci alquran sunna faaw nga nekk lu ko mooy ruuxu kese nit ñi moom mënuñu ko gis fi ñu ne mën naa bari loolu ay arwaax waaye kenn mënu nun duñ gis ah, ku nekkul ci jëmm ni jàpp ne amoo ruux googa itam am na solo lool ndax ndax bu génne ci jëmm ji jëmm ji jëmm ji dee lay doon duutu amati benn njëriñ diine joo gis amuti teggin xamal ne diine joojee maanaam mooy ji ju amatu ruux mooy jëmm ju amatu ruux sekkare mbir yëpp nag mi ngi ci bëgg bëgg bëgg bëgg Cheikh Mouhamadou Lamine Gueye jëm mooy mu baax ma dara wax ne sëñ Tuubaa bu amoon njëg njëg ji mooy bëgg ko bëgg ko rek moo lay moo lay mooy rataxal sa digg ak moom moo lay mayante moom bëgg mooy dinaa ko wax lu bare bare boo gisee yéen tamit ne laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladihi wa nas ajmain mooy iman lépp iman da nekk ci xol bi yonent bi te xol ci benn jumtukaay rek la ñuy jëflantee ñoom ñaar lii jumtukaay yees yi ñu tuddee bultuus nga xam tey day mën a jox jox jox léegi ab dossier yi boo bëggee muy jóge ci xol bi yonente bi dossier bi di ñëw sa xol benn rek leen rek mooy bëgg ko bëgg rek mooy jokkalante mooy lëkkale ñaari xol mooy lëkkale ñaari xol kon gàttal gi kooku mooy ab murit xam ne moom faw mu am itam fu mu àndal ci yoon wi loolu alxuraan moo ñu ko jàngal ak yee ci aju yëpp na lu xaj ci mu àndal it faaw am fu ko fu ko jëmale di ko defal maa jaarale ci li ñuy wax taxliya mu génn ci moom jikko yu bon yi lu mel ne rëy ak naw jëf ak woru ak yëg sa bopp nay ak ak mer ak tàngoor ak ngislam ak coxor ak kañaan ak yi di yooyu li fekk tàggali ko woo moom mënu koo mos mos mos mos maanaam dëgg-dëgg ak mbëri mënu koo dem fenn boo tàggali koog yooyu am na yeneen yoo xam ne mënu koo ñàkk ci sa xol ngir nga gën a mën a ngir ngir nga a dox mooy faw nga maanaam mooy li ñuy wax taxliya daa am ñu ci war a dugal ay jikko yoo xam ne mënu koo ñàkk mënut a ñàkk ci xol mooy dëggu gëm yàlla gëm bu wér yaqin ak ak ak ak maarifa billahi ak tawakkul wakiilu suñu borom gërëm suñu borom ak di tudd yàlla ak di ko sant ak ragal ko ak di ko bàyyi ak yi ni demee ma ah, jikko yooyu mënu ko ñàkk loolu nag bu dajee ci yow nag ci ngay am na li ñuy wax tëjal yi mooy leeru yàlla nag fekkat ci sa xol mooy li yonte ba doon wax ittaqu firasata al mumin fa innahu yanduru bi nuurillah ah yanduru bi nuurillah xam ki nga xam ne day xool ci leeru jant bi gis ngeen li mën a gis lépp gaa ñëpp lu bari dana ko gis fii waaye kii xool ci leeru yàlla kooku xam nga moom sëñ bi lu ne lépp kooku lépp lu mën a gis ah aw man kaana mayitan fa ahyaynaahu wa jaalna lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas yamshi bihi fi nnaas leer googee nag faaw nga tàqali koog mboolem sikki sëñ bi waa dara wax ne aybu moo dox sa diggante rëy boo taqale ko sikki rek lépp leer ci sa kanam bu loolu weesoo itam sikk yooyu borom xam-xamu tasawuf ñoonu ñoonu jàngal naka la ñuy taqale ko ñoom pakki bakkan yi suñ ci wax na ne bakkan dafa am pakk yoo xam ne li feeg dogoo ko mënoo àgg ci borom pakk yooyu yi nag li la ci dimbali mooy mooy tiisaw lam ak ñemeb xiif xiif bu diggu doomu ak di di def xiyaamu léegi dundal guddi gi ak ñime léeg nga wéet sori lépp wéet ak sa borom ak di tudd yàlla ak yii ni demee suñ wax na itam ne am na kiiraay yoo xam ne day dox diggante xol ak suñ borom kiiraay yooyee wax na ne juróom benn lañ mooy xiiwlu gu bari ak naan gu bari ak jaxasoo gu bari ak euh, wax ju bari ak nelaw yu bari ak sàggan ci tudd yàlla ci ñi waa am ne ñam mi gën a neex si muri daa war a doon tudd yàlla dawaamu dikri dil jalalil maliki xayru taami lil i saliki dawaamu dikri dil jalalil maliki sëñ bi wax na ne gaa yoo yi nga xam ne ñooy dox ci yoon woowee am nañ ay cosaan yoo xam ni moo moo moo maanaam moo téye yoon wa ji dox te mooy ngoy ci alquranul karim ak roy ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak di jëfandikoo lu lew di moytu mooy yàlla te bañ a lor kenn te xaq yi dox sa diggante kenn ku ne nga jox ko ko ba mat ba mat sëkk tàmbalee suñu borom say waajur jullit ñi sa bokk dara yi ñëpp rek ba ci mala yi xaq yi dox sa diggante ñoom ak tuub saxoo tuub nee na loolu mooy usuli alqawm inna usul alqawmi sabatun tura الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله أكل الحلال واجتناب المعصية خامسها كف الأذى فالتكفية سادسها الأداء للحقوق وتوبة من جملة الحقوق عقوق wax na ne itam ne yoon wi am nay ponk ponk yooyu nee na juróom-ñaar la ba tey arkaanuhu naarifu minha sabaa سمتا وجوعا واجتناب البدعة وتوبة وسهرا وعذرا ثم استقامة فنعم القصر موي نيمي نيمي تيسو لامي ديكو مانام تيسو لامي تي لب لو امول جاري واي نيمي خيف موي تو بدعة بدعة نك mooy lépp loo xam ni sos nañ ko te amul cosaan ci diine man eh, ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu bokkut ak maa huwa minhu loo xam ne am na cosaan loolu moom du du bidaa lañ yooyu mat lay leer la rek nga xam ne da ngay gis boo xam nun dañuy màggal am ñu la seen màggal bi ngeen def <laughs> fekk màggal saay sun sunna la ci sant yàlla kooku du bokkul ci diine ji daal du ci bokk di sëñ dañ fay daje di sant yàlla ak di joxe ay ñam di gàmme ak di jokk mbokk ak di siyaare gaa yu baax yooyu yëpp ku ko diine ci génn ci diine diine lu ci des du ba dootu bàyyi ah, waaw yeneen màggal yëpp gudd gi xam nga dañ koy màggal yonent bi ci yow moo njëkk moo njëkk a tàmbali loolu ndax moom moo daa woor bis bi ñu ne ko lu tax nga ko woor mu ne naaka yow mun wulitu fii bis boobu ci la feri bi mu amee ñeent ñeent fukki su ba suñu moom yi yónni ko itam mu rayaatum xam ngénte waat boppam xam loolu màggal la ak yooyu yëpp mi nga kon bidaa mooy lépp loo xam ne lu yees la te amul ci saat ci diine ci misaal julli juróom la nga ne naa ci yokk benn muy juróom juróom benn julli xam nga loolu war nañ tisbaar bi rakka nga ne naa ko def juróom ñett ci sa positif de loolu moom mooy bidaa mi doon ak saxoo tuub ak dundal guddi gi ak beru léeg-léeg ak wéet ngir jaamu yàlla ak istiqaama sax ci njub yooyu sëñ bi nee na mooy ponk yoon wi murit am nay jikko sëñ bi nee na murit day xam di jëfe lam xam te yàlla rek tax te du jeng mukk loolu moo koy jural ak sell te sell googee nag mooy tax xolam fees dell ak xalaat yu jëm suuf suuf lu waay buuf xam nga da koy xëpp ci kawam te saa yoo gatee suuf lu baax rek ngay génne mboolem yi yi ñuy jëfandikoo ci kaw suuf mbell yeeg or yeeg jamono yëpp ci suuf lañ ko jëlee xam nga te lu waay bon la fi ne xëpp ci kaw suuf mu ne noonu lay mooy ab deram lu ne waaye mën na ko jaxam waaye boo jëflantee ni mu xam ne ku baax a ngi waaw léeg-léeg nga gis mbokk mu mu ñëw Touba mu ñëwee ne man kat fekk dafa xaw moon ne yéen <laughs> fekk moom xamul li muy noonu tamit neen suñ tubaa nee na yetta uhal kërimu wala yi suuf ñëpp koy dëgg ku baax dana ko dëgg ab saba ku mel ne dana ko dëgg wal barru wal aasi wa tastadim wa ka saxaabi wa ka fadlil maay da ngay mel ne ndox mi taw bi buy taw xam nga du wax ne kër yéefar yi naa leen bàyyi tawal jullit ñi déedéet ñëpp lay maase tawal ker gi noonu du ne ab jullit rek moo fi ker déedéet ñëpp ñëpp lay jox keram ngoon jullit noonu lay def noonu la def murit boobu noonu la noonu la jikko yooyu lay amee mooy la muy def ci lu baax du ci am kii ak kaa ñëpp la koy defal wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma kon kooku mooy gàttalu am murit sëñ Tuubaa melal na ne ñeenti mel la am mooy faw ak bëgg moo jiitu ci moom bëggub sëriñam waaye topp ndigalam bàyyi teram yooyu yëpp mënoon nañ cee taxaw waaye nag day gën a gudd bu ko dee nag foofu lañ duggee kon ci ñaareelu mbir mi te mooy politique mooy lan politique bi man mosuma di waxtaan wax dëgg si daal di njëkk a waxtaan politique xëy na bari nañu ci xam léegi yooyu waaye yaakaar naa lu leer la mooy ni ñuy doxale mbir yi rek mbir yi léegi na ngay def ba jot ci mbir yi nga xam ne ñëpp a ko bokk nga leen ko lijjantil loolu loolu mooy politique maa na def ba jot ak boo ci jotee na ngay fa ngay jaar ba doxal ko ba kenn ku ne nga jox ko lam sa a am séddale ko ci anam gu maanu loolu mooy politique léegi nag loolu moom moo moo tax mu bari coow ginnaaw ñëpp ko bokk xéewal yi nga xam ne mu ne ci kaw suuf te ñëpp bokk loolu la kenn ñu bare bari bëgg na kaay ñu ma lijjanti jox leen ma ko ma jox leen ma lijjanti leen loolu mooy indi mooy indi coow li ci am yoo am benn bu xorom bu ñu axnaf axnaf ci jamono yi yaakaar naa Haarun Rasiid la jafe-jafe am bekkoor am maanaam kilifa gi ñëw ci jàkka ji ne leen da ngeen di muñ ndax kat yàlla suñu borom mi nga xam ne moo yore xéwalam dañ ko ci magasinam moon teg natt bi axnaf di ko am ful la jug ne ko xéewal yi suñu borom denc ci magasin mu magasin am xam nga loolu taxu taxu nuy wax yow xéewal yi mu nu wàcceel tamit denc ko sa magasin yi moom lañ bëgg nga génn nga génne ko kon loolu mooy gàttalu ci wax ju leer ne mooy doxal mbir yi ak anamu doxalin mbir yi ak anamu atte loolee nag ñaari anam la mën mën laa dénk nga am yoon woo jaar ba doxal mbir moomee waaye mën ngaa ñëw ne itam dénk leen ma loolu du waay ndax gis nañ sayyidina yusufa alayhi salaam sàkku ñu jox ko dégg nga wàllu koom ca misra waaw ne leen man kat xam naa ko inni xafidun alim waaw jox leen ma wàllu koom mi ndax xam naa ko te mën naa koo doxal suñu borom xamal na ma ko bu ko defee nag jëm politique am na ci lu xaraam am ci lu dagan li dagan li koy xàmmee mooy li fekk génn cadre islam rek waaw lu ci génn cadre islam rek ak sariya rek ak ndigali suñu borom bi rek xam ne loolu lu xaraam lépp lu xaraamoon ci lu politique xaraam na ci politique jëw ni mu xaraamee ci bu bu suñu diggante yi noonu la xaraamee ci def ci diggante politicien ku fi jiite fi ne boo koy wax di wax sikkam yaa ngi jëw ndax ab julit la sëñ bi même bu dul ab julit tam sëñ bi daana wax ne bu leen jiw ab julit bu leen jiw ab yéefar ndax nee na ab julit am na nu mu ko waxee dama ko sa dàgg bu sa dàgg seen dàgg ak bu leen lakk seen dàgg sa dàgg mooy jiw ab julit lakk sa dàgg nag mooy jiw ab yéefar te ab yéefar amul lu baax nee na moom lam am ci lu bon rek la lay sànni jiw ki koy def mi ngi mel ne yaa ngi jël sa lu baax di sànni waajee Imaamul Gasaali nee na bu ma doon jëw sama ndey laay jëw ndax moom la gën a yéene samay tuyaaba ndax yaa ngi jël ci lu wax li nga yor rek di ko sànni di lëpp am na kenn ci gaa yu baax yi dañ ko wax ne ko diw de wax na la nangam nga nangam mu yónnee ko mu neexal ne ko yow de maa ngi di sant waaw ndax lii nga ma yónnee ci tuyaaba mën na maa dund ba tuddee <laughs> ma ko am moo tax kon lépp lu xaraam rek xaraam na ci politique lépp lu daganoon itam dagan na ko kenn mënut wax ne lépp ma xaram kenn mënut wax ne lépp ma dagal mbir la mu boole yu bare bare bare léegi nag ki ciy dugg nag di am murit mooy moo war a am nu mu ci duggee ndax murit daa am lu tënk ba noppi yooyu ka tënk nag wut na xale koog moom maanaam ab julit buy dugg ci politique day xool la daga nag la la kii waaye murit moom am na bunt boo xam ne ci la war a duggee ci politique te mooy xidma buntu xidma xidma ab principe la bu mag ci yoon bi te mooy loo mën a defal nit wala bindeef nga jariñ ko ko te yàlla rek tax te doo ci séentu ak pay mbaa ak cant mbaa ko ko xam loolu mooy xidma فاخدمهم سرا لوجه الله فقد بلا من ولا تنال فحيثما كنت من المواضع ففيه حاول ان فعل افضل المنافع سن بو فكي وقت كي نغا كيما دغ وكل ما تطلبه فاقصد به وجه الذي ابداك ولتنتبه لول ما خدمه سن جو واخ ne bu ci am kii ak kaa li ngay def ci lu baax na nga ci na nga ko defal ñëpp xidmaal ñëpp kenn ku ne boo ko ne jëriñ nga jëriñ ko moo xam ci wax la wala ci jëf wala ci xaal bi nga amee moom ak noo ko mën a amee rek loolee nag bul ci wut ak fay mbaa ak cat mbaa ko baxam loolu mën nga ko def ak sab sëriñ xidma nga ko defal say waajur mën nga ko defal say mbokk taalibe mën nga ko defal say mbokk jullit mën nga ko defal sax koo xam du ab jullit ndax fax dim bu la sëñ ki nga xam ne nag daa ñëw ne kat lii kat gis naa ne gaa moom ñu ngi ci te man jàpp naa ne man naa ko doxal te incha allah am naa ragal yàlla goo xam bu ma ci duggee maanaam dinaa ci def ak maanu te kenn ku ne la nga war a jot ci sa xàq di nga ko jot dinaa yemale ñëpp ñi ñàkk ñi am ñi bokk fii ñi bokk faa ñi ma bokk nag ñi ma bokkul ñëpp laa ci yemale ak maanu laay doxal fas ci yéene liggéeyal suñu borom di ci sàkku tuyaaba yo xam ci ca suñu borom laa yaakaar ngërëmam ndax li ma ciy def seetuma sax ku ko xam ba ko ko ko ma ci sant kookee mi ngi ci liggey bu reuy amna hadith xadis bi wax ne benn bisub ab ab kat bu maanu tey doxal ngir yi na mu war na ko suñu borom bëggee mo juroom benn fukki at ak yaam yàlla keneen mo ñoy tolo lolu ya bari ci moy kon buntu xidma ab murid bu ci dugg fofu lay way moy mooy warna war nit ñi lii nag mu yoroon leen ko doon nag seenu seenu seenu koo xam ni ma ma ab surga doo président tekkiwul ki yow ab surga nga war a doon dañ la dénk fexeel ba dañ la dénk ñe la ko dénkoon kenn ku ne na nga ko doxal ba mu gis ci boobu ci maandu te bul jël xàq yi kii bul jëfandikoo mbir yi itam ci say wàllu bopp ak say mbokk ak yëpp déedéet buntu boobu bu fekkee am murid mën na ci tàbbi foofu la ci tax ñaareelu ba itam mooy am na mero yoo xam ni war na koy bàyyi xel ba ci njëkk mooy ragal yàlla ci dugg ci lu mel noonu wala ngay jël ab poste ak ragal yàlla nga ci war a doxee te sëñ bi moom la digaloon murid yëpp wa lazimu taqwa bi sunnatil amin fadum ala saydil huda wa taa bi zuhdi wal warai wal qanaa akum njub maanaam ragal yàlla akum njub mooy yow boo xam nga këyit yi moom mën nga ci lijjanti lijjanti ba kenn du xam yow li nga def waaye yàlla moom gis na la gis na li nga def lépp xam na ko te mënoo koo jaar fenn itam mënoo koo rëcc yàlla moom la nga war a bàyyi xel ñaareel bi itam war naa xam maanaam xutu waram maanaam yor mbiru mbiru mbooloo bi loolu sëñ bi dara gënu koy dansé fi mu ne eh, Ubaydullah Ubaydullah ibn Ziyad doon ko doy waar dafa dégg ne Maqil ibn Yasaar al-Muzani dafa feebar ba waaj a faatu mu ñëw daa ko seet bi mu ñëwee nag fekk Ubayr la kenn mos koo ñëwee Ubayr la ibn Ziyaad mooy moom nekkoon Kuufa ñoo faat si ndax Huseyn xam nga dagg bopp ba sëñ bi di ko wërale ci adduna bépp te muy sëtub Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam leen faat ñëpp ci génn bëccëg ba mu des ñett ñoo ci rëcc bu doon loolu yonte bi fi amul sën ba mu ñëwee nag di ko seet si rek over la maaqil ne ko kat ginnaaw maa ngi waaj a faatu lii mën naa la ko wax bu mu fekkoon nag xam naa ne faatooguma sax lu ma ko ñime wax waaye xam naa ne man sa man maa ngi waaj a faatu mooy yéen dégg naa yonente bi wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ma min abdin يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة képp koo xam yàlla dénk na la nga am loo yoral nit ñi war leen koo sàmmal nga am genn wuruj goo ca def ak lu mën a demee rek nee na yow doo tàbbi àjjana yow ak noo mën a mel rek loo mën a def ci jàmm doo tàbbi àjjana àjjana doo ko dugg yow rek nga jëm yow xam nga loolu lu rëy la ko tóora boobu nag danger boobu na ko bay xel ñaareel ba mooy Seydina Abu Dharr al-Ghafari di saxaabi yi bu baax bokk ci tànnee bi saxaaba yi nga xam ne sufiyaat yi buñ jël misaal bi ci bari ci moom lañ koy jël ak dëddoom dafa mas a wax yonente bi ne ko damaa bëgg nga jox mu poste sàngam ma nekk fa yonente ne ko ya aba dar innaka daifun wa innaha amaana wa innaha yawma alqiyamati xizyun wa nadama man axadaha bi xaqiha wa adda alladi alayhi fiha ne ko yow da ngaa maanaam saxol daa woyof néew doole gi jubluñ ci néew doole gi waaye saxol daa woyof nga gaaw a bëri yërmande te lii du lu woyof xam nga koo xam ni maanaam ku ñëw rek mu yërëm la nit mën naa yërëm tanu fi kanamam ba mu jox ko xàq jàmbur bi ne moo tax yónnee bi ne ko yow da ngaa néew doole te sa xol te lii di amaana boo xam ni euh, gàcceg ëllëg lay jur ak rëccu ëllëg nga xam ne jox ko lu ko jox moo tax jëm ñi li ñu la dénk daa aajal maanu ak yemale ak di ci doxal na ko suñu borom bëggee wala yajrimannakum shana'aanu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu yoonte bi agon na ci wax ne fatima sama doom jii de bu sàkkoon sax ma dag loxom sayyidna umar ibn khattab domam wax nañ ko ne daa daa daa daa naan sàngara am nañu ñoo xam ne sax ne ba mu koy naan xamutu xamu ko woon waaye tiwul suñu ñëw Seydina Omar da ko yoo xam ne ponkal la wut moo xam ne ba mu koy dóor téeméer yar ba ba mu daanoo rek la waaj seetlu guy daa faatu ci ci dóor yooyu Seydina Omar te boobu mooy amirul moo moo tax maanaam yor loo xam ne ñëpp ko bokk loolu am na danger boo xam ne mu lu ci dugg war na war na ko bàyyi ba tax na war na ci ànd ko ragal yàlla war na ci ànd ko dëggu ak matal wóllëre ak ko ak wormaal deri ak seeni alal ak seen seeni lu baax te yàlla rek rek tax di ca woote jëm di taxaw ci dëgg te bañ caa génn te di ko wax te di ko jëf te li muy def mu koy seeral suñu borom te bañ a jaxase dëgg ak fen di sàmm dëgg itam di dimbalante ku muy jàppalante itam ci kaw bëgg ko suñu borom wa taawanu ala al birri wa taqwa wa la taawanu ala al ismi wal udwan fi ne bëgg waaw kon baax na waaw waaw li ma fi daal rek mooy yu bari fële boo gisee wate yi ñoom duñu wate loolu du ci am na sax ñoo xam ne jàpp ne masal loolu waaye li ci bari ci ne jàpp ñu ne sax dafa xaraam waaye jàpp nañ ne boo wateelee waa ji yaa ko fam léegi moom lu mu def ci lu bon yow dangaa ngaa jàppalanteeg moom da ngaa dimbalanteeg moom àlal ismi wal udwaan xam loolu nag gisin wu ragal yàlla wu tar la donte nag am na borom xoom gis nañ ko gisin wu gën a woyof mooy jàpp ne yaa seere lool ak yow kii kii kii ku ci gën nga ne ak ah kii di naa moo gën kooku yow xam nga sa yoon ne ko di wala moo tax am na ay jikko yoo xam ni war na koo xam ni suñu borom dénk na la wala nga koy sàkku nga làmboo ko waaw si jiwaay itam am na lu mu dénkaane woon mooy bul ànd ak ab saay-saay baal ma ci kàddu waaye noonu ko sëñ wax wala lahu suxbatu fasiqin wala xultatuhu koo xam ne wóor la ne du ku baax bul ànd ak moom loolu liggéeyul sëñ Tuubaa wax na itam ne ku sàggan rek bul ànd ak moom wala takun muxaalitan dawil gufuur bal kun musaaxiban axi dawil uqul seetal boromi xel yu maanu nga ànd ak ñoom waaye bul ànd ak ku sàggan sëñ bi waxoon na itam ne kuy mooy yàlla it bul bul ànd ak moom wala tamilu li dawil isyaani nee na buur bu jenn itam bul bul bul dox jëm ci moom mukk bul ko seeti mukk bul ko siyaara wala tasir li wasarin lil umara al jairina abadan wa abadan wal wusara wax na itam ne maanaam bul dox mukk jëm ci koo xam ne ab tooñkat la moom wa taxfadu arjulakum min mashi ila muharramin biha aw sa'i ila salaati li dawi zulmi bila daruratin qad xoqiqat xanaa loolu ji wër war waral ko boo mën nga caa dem moom ndax nee na képp ku toroxlul nit ku nit ku baax te am alal rek nga toroxlu ko ngir alalam ja nee na sa diine bu doon ñetti xaaj ñaari xaaj yi moom dem na nee na ab tooñkat nag boo ko toroxlulee boo ko boo toroxloo fii kanamam nee na yow sa diine jëpp moom dem na woon amutoo diine tawaaduun ila alganiyi saalixi yudhibu sulusay diini kulli saalixi amma tawaaduun li zalimin fala yabqa min addiini layaadun uqila waaye nag sëñ bi wax na ne mas naa maslaa loolu wax na ña ko war a def du ñëpp wax na itam ne maanaam waaye loo masa masa itam bul topp mbindeef ci mooy yàlla wa bil maasi laa tuti am maxluuf maxluqa yooyu yëpp ay ndigal la yoo xam ni daana wax itam ne am na yoo xam ne yu am solo la ci kii foofu lay daanale ci ci wàllu googu mooy di leen tuumaal seen bopp it loolu am solo la maanaam mbir mi bu jàpp ne sa waay kee rek moom moo ki am sikk léeg-léeg ñëpp tuumaal sa am murid dëgg-dëgg sëñ Tuubaa daa wax ne sikk yow bul jàpp ne keneen am na ko sax jàpp ne yow sikk yëpp ci yow la nekk nga jéem ko lijjanti ittahimu wattahimu anfusakum wa xassinu bi rabbikum dannan fa huwa almuxsinu te bul geesu itam bul soxore kenn bul iñaane kenn itam loolu suñu ndigal suñu Tuubaa la wala tamit li xeqadin aw li xasad balin wi xayratin li kulli muxtad del lëbiri ñëpp itam maanaam mën ngaa lëbiri waaye lëbiri itam am na ay dawaabit